suñu nuyoo teg ko ci loxoy bàyyi Dum Tine mi nga xamante ni wax dëgg yàlla bàyyi mbay Seck waxoon na ko ne du dum waaye duma la waaye duma kan mooy kiy dox suñu diggante ak suñu borom mooy seytaane duma kan kiy dox suñu diggante suñu borom mooy suñu bakkan ngir mu teg ko ci loxol suñu kilifa gi nga xamante ni tey ah ci loxom la jaare tey ba ñu am ko mel ni moom muy sàng bi cheikh njour aboori dial mu jotal ñu ko ci mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi ci góor ak jigéen ah ak ci ay kilifa ak ci ay taalibe di ñaanal suñu xalif seydina cheikh aline sise mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye suñ borom itam dooleel ko ba mébét yi nga xamante ne bëgg na ko ci liggéeyu kilifaam gii di Cheikh Moussa Cissé mu di tabax jaam ñi nga xamante ni moom la suñu borom tuddee xalifatulaay fil ard euh, liggéeyam boobu sotti waaye di ñaanal nag ki nga xamante ni mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu tiwér ci laaj bi nga xam ne moom la Cheikh Bokor laaj mooy ñu dellowaat ko fañ ko war a delloo mooy lan mooy tasawuf bu ñu demee ci suñu kilifa gu mag ci yoonu tasawuf ñu ko wax Cheikh Abdou Khadre Jilani dafa am lum ci indi ci benn téereem bi nga xamante ni moom la ñuy waxee euh, Fathul bi muy la conquête des secrets mbala boog sirul asrar plutôt muy la conquête des secrets mu am lu mu ci indi wax ne tasawuf ñeenti xaraf la muy taa ak siin ak waaw ak faa te bu ci nekk rek buñ ci xuusee ca biir dinañ ci yokkaale tamit yeneen yi nga xam ne ay kilifa indi nañ ko mu doon ëmb boo xam ne dalay xamal lan mooy tasawuf te xamal la ne ku am tasawuf rek kooku moom moo mucc ci digganteem ak li koy gaar fii ak fa ñu jëm waaye ku amul tasawuf nag yàlla na nga dajeeg yërmande ak suñu borom waaye lay sa mission fii ci kaw suuf mën nañ wax ne wax dëgg yàlla am na lu la ci rëcc mu ne tasawuf taagi mooy al tawbatu mu ne mooy tuub te foog naa tuub mooy li njëkk ci jaamu yàlla bi nga xam ne dox na suñu diggante ak suñu borom ndax suñu maam aadam ak suñu maam xawaa bi leen suñu borom boole ca àjjana ja jox leen diggal lam leen jox ci bu leen laal garab sàngam bañ ko laalee ba nuppi ba suñ borom yëg na laal nañ garab gi mu woo leen ñu war a wuy si suñ maam aadam ne ko ah suñ borom ñun dey dañoo solutu yére mu ne ko nu ngeen def ba xam ne solu leen ay yére kon laal ngeen garab gi kon ca la ne rabbana zalamna anfusana ba aaya ba jeex kon suñ borom am ay baat yu mu ko xamal muy baati tuub mu ne kon tasawuf taagi mu ngi tàmbalee ci tuub li tax mu tàmbale ci ak tuub mooy da nga ñëw fii indaale ak réer waaye nga nekk fi tamit nekk ci ak réer ndax suñ borom nee na ñun ñëpp bu ñuy judd dañuy indaale ngëm yàlla muy fitra mu ne waaye nag fa ngay juddu ñoo lay def lañ lay def kon bi nga xam ne lislaam ñëwagul suñu diine buñ ko mënee wax noonu dafa woon ci suñu culture joolaa bi am na nu muy gëmee am nu muy jubloo ci ay mbiram ci wàllu spiritualité séeréer bi noonu wolof bi noonu naar bi noonu bàmbara bi noonu ak keneen ak keneen kon yooyu yëpp doon ay mbir ak yi kiiraay yoo xamante ni tax na ba ñu jublu feneen fu dul suñu borom mu ne maqaama tawbatu boobu bu ñëwee lan mooy tuub tuub mooy fii nga jublu woon te du yoon wi nga wëlbatiku nag jublu ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi jub ci lii nga nekkoon te du loolu nga bàyyi loolu nag jublu ci li nga xamante ni moom mooy dëgg

Euh, yeneen tee yu nekk ci biir muy yeneen taa yu nekk ci biir mooy tuub googu faw nga dajeeku la tarbiya tarbiya bi mooy mu yar la tarxiya bi moo mu yéege la xamal la tasfiya bi nag maanaam mooy nag mu defal la ci yow li nga xamante ni maanaam dootoo jóg ci jokkaloo ak sa borom saa su ne mu ne bu boobaa nag yeneen taa yi dana ci topp lu mel ni ñoom tam kii nag ñoom tumaani nag yu demee noonu muy dal ak tawfiix ak yooyu yëpp dafay dugg ci loolu ndax ba nga tuubee dellu si rek suñu borom xamal na ne delloo na la jokkale la ak boppam kon mu ne loolu mooy taagu njëkk gi nga xam ne moom mooy tasawuf mu ne loolu nag boo ko amee ci taagoo bi dafa lay yóbbu ci siin gi mu ne siin gi lan la lay jafal mu ne mooy sillatu muy lan connexion ak sa ak sa borom ndax li tax mooy ñun ñépp ku ci nekk rek jàppoon nga ne lañ la yaree loolu mooy dëgg la nga xam ca barab ba nga nekk foofu la mbir yi yem te noonu la dëgg gi mel waaye jamono bi nga xam ne daje nga ak seexul murabbi bu la wëlbati tuubal la teg la ci yoon yooyu nga xamante ni moom laa lim sànq mu ne falaa budda foo jaar nga am sëllatu ilallaahi mooy nga am connexion ak sa borom mu ne na connexion boobu nag boo ko amee ak sa borom nag mu ne bu boobaa nag bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoom la suñu borom wax ca suratul laxzab ne moom yàlla moom mooy julli ci ay jaamam ànd ak i malaakaam ngir génn leen ci lëndëm indi leen ci leer moom yàlla moom mooy yërëmaakoon bu mag bi kon yàlla bul suñu borom bu la yërëmee dana la jubal ci foo xamante ni dañ lay tuubal te bu tuub googu matee suñu borom dana julli ci yow te julli googu mooy sillatu gi muy salaatu gi muy jokk gi mu ne sillatu googu nag bu fekkente ne nag ci yow mu ne fa muy mujjee ak yow nag mooy saadatu mu ne saadatu mooy lan mbirte moo xamante ni dafay sax ndax dellu nga ci li nga xamante ni moom mooy njariñu fii mooy xam nga ne ndekete dund gi du ay kër yu rafet du ay oto yu rafet du ay jongama yu rafet du ay ay ay jëkkër yu rafet du ay daraja du ay loolu yëpp waaye ndekete dund gi daal mooy jokk ak sa borom ndax bu fekkonte ne loolu mooy dund gi booy judd da koy indaale te amul kenn ku juddu xataa yonent yi ak wila wàllu yu indaale ay yére yu rafet wala indaale alal wala indaale oto wala indaale nangam kon nag lii nga xam ne naxee mbaayu àdduna bi nga xam ne tey ca la ñuy ngar ngari jëm te suñu borom xam leen ne kat loolu mooy li leen di sànq ndax mooy nattukaay yi te bu ngeen ko toppee mu sànq leen ginnaaw ba nga amee branchement ak suñu borom loolu dafay dañ moo tax mu ne kon nag sillatu googu dafay mujjee def ci yow saadatu muy mbirte bonheur waaye nag saf u muy lan koo xam ne sa dund lépp dafa rangé wu maanaam jublu ci li nga xamante ni moom mooy suñu borom. mu ne nag ginnaaw bi nga xamante ni nag maqaama boobu wàcc na ci yow di siin gi mu ne daf lay yóbbu ci beneen maqaama bi nga xam ne mooy bi gën a mat muy ay wilaayatu te foog naa wax wilaayatu suñ borom lañ ci wax leer na allahu waliyu lazina amanu li tuxrijakum mina zulumaat ila nuur mu ne yàlla moom mooy méngoo ñi nga xamante ne mooy ñi ko gëm ngir jële leen ci lëndam yóbbu leen ci leer suñ borom mu ne am ittaxaso min dunillahi awliya fallahu képp ko nga xamante ni maanaam bu leen noonoo suma wàlliwu yi ndax moom yàlla ci boppam mooy wàlliwu bi kon wàlliwu bi mooy ki nga xamante ni buñ ko mënee wax noonu suñu borom def na ci moom benn ci siin boobu mooy sibxatallaahi fa man axsanu min allaahi sibxatan wa nahnu lahu abidun ca baqara mooy lan ki nga xamante ne suñu borom cuubee na ko boppam ba nga xamante ni léppam ni ko bàyyi bi di waxee yàlla yi kese la kon maqama wilaayatu googu noonu ginnaaw bi nga jaaree ci taa muy taw mu ne mu ne nga ñëw ci siin googu nga xamante mooy silatu bi di connexion bi ak yamu àndal dafay jur ci yow ak wilaayatu mooy nga doon koo xam ne yàlla da laa méngoo te boo demee ci xadis bi nga xam ne mooy mooy xadisu wilaayatu xadis boobu mu ngi tàmbalee ci suñu borom di wax ne moom yàlla yërmandeem la jiital ci ak meram mu ne bu kenn noonoo ay wëlliyum ku noonoo ak wëlliyum moom yàlla dina la déclarer guerre kon dafa mel ni ci xadis wo dafa la bëgg woon jeexitalu tasawuf que ne tasawuf mooy liy baaxal nit ki ndax xadis bi boo xoolee ni mu bindoo di nga xam ne yàlla maqaama wëlliyu lay junj foofu parce que wëlliyu bi mooy ki lay jokkale ci yàlla ndax bi muy pare ci xadis boobu bi mu ne sama yërmande laa jiital ci sama mer daal di ne bu leen di noonoo samay wëlliyu ku noonoo sama wàll man yàlla déclarer la guerre mu ne sama jaam nag dina ma jege jegelu ci naafi ci ci ay ci ci ci yi ma ko digal ak yi ma ko tere mu ne waaye nag jege jegelu bi mu ngi gën a kawee ci yi nga xam ne mooy naafila yi ba keroog ma bëgg ko man yàlla bu ma ko bëggee nag man yàlla ma doon yàlla waxul ma def nii de dafa ne mooy doon dégg ga mu nga xam ne moom la waajooju di déggee gis ga muy gisee kàddu ga muy waxee loxo ya muy jàppe tànk ya muy doxe xol ba mu yëgee ak léppam kon kooku yàlla cuubee na ko boppam ba nga xamante ni bu la rombee nga xam ne yàlla nekk nee di romb kooku nag dafa mët a dégg nag romb la fëgg dënnam ne maay yàlla nga ne hé diw wax fekk na déedéet maay président ak maay Macky Sall du benn waaye benn la nag ndax li tax mooy la tax ñuy wax ne mooy président maqaama la boo xamante ni ki ko xam rek moo ko mën a yëg ci moom waaye ki ko xamul mënu koo yëg ci moom kon nag suñu borom moom mooy summeeku ci jaamam ci maqaama wilaayatu googu noonu ba nga xamante ni léppam cuub na ko ni ko waxee ne sibxatallahi wa man axsanu minallahi sibxatan cuubug yàlla gi wa man axsanu ana kan mooy dàq cuub suñu borom minallahi sibxatan kon yàlla buy cuub cuubug ngërëm gi mooy boppam ndax li tax boppam la mooy lim ci teg wa nax nu lahu abidun ñun nag ñooy dëgg-dëggi jaam te ñun ñëpp ay gaam lañuy ñuy wuta doon mbaqama wilaayatu googu nag bu nekkee ci yow nag mu ne daf lay yóbbu ci faa gi mu ne lan fa ndaawu min nafsika mooy lan sa bakkan dafay daal di seey dafay daal di jeex dafay daal di dal yaa tuhal nafsul mutma inna maanaam sa bakkan dootul am effet ci yow boo xam ne dana la weddi loo suñu borom wala dana la jubluloo foo xamante ne suñu borom gërëmu fa maanaam bakkan bi dootul doon sa buur yow doonte nag mën na lay faqastal saasaa ndax sa nite du mës a jeex waaye bakkan bi moom moomatu la moom goo xamante ni tey bu yàlla wootee bakkan bi wootee nga bàyyi fa yàlla dem ca dem ca la bakkan boo woote mu ne nag fan naaw googu nag bu la bu la dikkalee mu ne nag yaa ngi jëm ci fadaay li suñu borom yi muy ngëneeli suñu borom yi ndax doon nga koo xamante ni yow amatoo benn connexion wala benn branchement wala benn len fu dul ci yàlla moo tax kon tasawuf moom mooy bunt bi nga xamante ni maanaam ci la xolub jaam bi di defaroo waaye nag ci la jaam bi di matee jaam ci boromam waaye nag ci lay jaam bi doonee koo xamante ni ci lay toog ci maqaama xalifatulaay fil ard mooy doon koo xamante ni dafa jikkoo jikkoy suñu borom yi ba fépp fu mu taxaw muy njëriñ damay bañ a xaababal ci beneen laaj bi moo tax ma ne kon nañ ko yemale gum foofu wax ne lii mooy li nga xamante ni moom mooy tasawuf nga xamante ni moom mooy méngoog jël jaam bi yóbbu ko fi nga xamanteni fofu la yàlla tek teg kayam bi laxat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju laaha wal yawmil akhir wa zakara laaha kaseeran kon mune en effet manam lolu conclusion yàlla la mune ndekete nek na ci yenent bi manam di model bu parfait bi kon manam l'islam boko degge wala tasawuf wala ngëm mooy ku ci nekk ci ñun yàlla dalaa woo pour nga doon Seydina Muhammad ku doonul Seydina Muhammad doo texe moo tax Serigne Touba ne bu ëllëgee fas way dugg àjjana di alburaax kenn koy war muy yonent bi te kenn koy war te yonent bi du ko war bàyyi ma te duma ko war bàyyi ko ñu ne booba fan la nekk mu ne ci poos yu ci poos yu yonent bi waaye du poos yi saayir yi loolu mooy duppee sa bopp yonent bi ba nga xamante ni bu ngeen doonoon fukk sax benn ngeen di doon kon loolu mooy dëgg-dëggi li nga xamante ni moom mooy tasawuf te suñ borom wax na ne jeexital bi mooy doon model boobu di Seydina Muhammad bu fekkee ne yéen bokk ngeen ci ñiy yaakaar yàlla waaye di bàyyi xel nag bés bu mujj ba waaye di tudd yàlla nag ci lu bari mu jeexale ca ba tey ca laxzaab mu daal di wax ne yéen ñi nga xamante nii mu ne nekk na ci yenent bi doonul bàyyi kenn ci yéen li bàyyi ji bi doon wax léegi kon maanaam mu wone ne affaire bi du deret waaye dafa doon nag ki nga xamante ni yonent la doon ku mujj ci yonent yi yàlla nag moom mooy aji xam yi nga xamante ni nee na yéen ñi gëm na ngeen tudd yàlla tudd yu baree baree baree bare di ko màggal ci suba yi ak ci ngoon yi moom yàlla nag moom mooy ki nga xam ne moom mooy julli ci yéen ànd ak i malaakaam ngir jële leen ci lëndam indi leen ci leer lii mooy yër mën ak suñu borom gi kon nag tasawuf lii lañ ci bëgg a junj ndax lu yaatu la lu ne mën nañ ko tax waaye tamit junj ci jeexital bi ne tasawuf daal mooy liy tax nit ki gaaw a mel ni nga xam ne moom la yàlla suñu borom bëgg jaam bi mel ko muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaatu wasalaam ala